aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu seen télévision bu mag bii di RTT TV euh, amaan mbégte ak bànneex saa su nekk niñ leen koy defalee seen émission wu diine yi nga xam ni ñooy xew ci réew mi euh, saa su nekk ñuy déplacé wu di dem ci jotaay yooyu di leen indil euh, li nga xam ne mooy sunu diine di ngir wan leen ko ci seen télévision bu mag bii di RTT TV ñu ngi nuyu mbooleem kilifa diine yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñun di seetaan Euh, ci njiital Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké xalif général de Mourides euh, di ko nuyu Mbacké di ko siyaare bu baax te di ko ñaanal suñu borom gën a guddal fanam te may ko wéram waaye di ñaanal Serigne Modou Mbend Fall xalif général des Baye Fall euh, moom it di koy ñaanal suñu borom toogaay bi nga xam ne moom la toog ngi liggéeyal maam yu tedd yi mu def ci lu kawe njortam mbokk yi tey bu ngeen gisee fi ñu nekk tey mooy Touba Sikane Euh, Touba Sikan euh, di dëkk boo xam ne mu ngi nekk fii ci Bambey euh, communauté rural bu Saxeer Caxeer moom Caxaar moom la ñu nekk tey ngir ànd ak ñoom ci seen bis bu mag boo xam ne moom lañ fii def chaque année di gàmm goo xam ne ren laam ñaar fukki at ñu koy woote fii ci Touba Sikan bu ngeen gisee ki ñi ñu toogal ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ki nekk suñu wet di imaamu dëkk bi bokk ci commission relation extérieure nga xam ni ñoom ñooy coiffé li nga xam ne mooy euh, mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk nekk ci biir dëkk bi ak lu nekk ci biti dëkk bi euh, doon dox seen diggante ak ñoom lu jëm ci bis bi ak di leen jox information yi jëm ci bis bi euh, sant nañ ci yàlla bu baax nag ndax agsi nañ ci bis bi tey mu tombeeg le 19 février ci atum 2023 bu ko defee rek dañ leen di bàyyi ñu nuyoo présenté wu wax ñu tey fan lañ àgg ci bis bi bu ko defee imam ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ak mbokk yi aousubillahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalatu wasalaam ala haadil amin saydina moolana muhammadin amin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuho bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mépp bokki tund yi ñoo leen di nuyu bu baax di leen siyaara waaye di nuyu itam waa télévision bi nga xamante ne teew si nañ fii ci Touba Chikane waaye jiital ci néew bi ak siyaar bi sëriñ Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér te ko ak taalibe yi di ñaanal itam xalifa Baay Faal yi mu yàgg fi te wér lool di ñaan mboolem kilifay diine yi ak kilifay aada yi yàlla may leen jàmm may leen sutura ñoo ngi sant bu baax ci dëkk bi ñuy wax Touba Sikaan nga xam ne bés bi ñu ngi koy jagale di sant sëriñ Touba di ñaanal wayjur yi nga xamante ne ak maam yeeg ñëpp yi nga xam ne bàyyi ko nañ ci dëkk bi eh, ak mboolem jullit yëpp di leen ñaanal jàmm suñu borom defal leen tawféex fa ñu nekk wante bés bi mu ngi tolloo fi ñu toll nii di ñaar fukki at cereen ji ñuy sant yàlla bu baax eh, di kontaan bu baax di dalal mbokk yi nga xamante ne ñoo bàyyeekoo ci ci kaw ñëw ngir defal ñu teraanga yi toll nii ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax. man li ñu koy waxee imaam Abdoulahi Diagne Touba Sikaar ñaa nga nuyu ñëpp ñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw jërëjëf imaam ci nuyoo bu am solo boobu nga xam ne moom la nuyu mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan RTT TV waaye ñaanal ñi nga xam ne ñooy suñuy kilifa diine yi waaye ñaanal ñi nga xam ne ñooy waa Touba Sikan ak nuyoo yi ak siyaar yi yëpp euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax bu ko defee mbokk yi foofu la ñuy jaare nuyu mbooleem kilifa euh, goo xam ne yaa ngi fii ci Touba Sikan euh, di am mbégte lool ci teew gi nga xam ne RTT TV teew na ko ci dëkk bi bu defee rek bu léegi dañuy des ci imaam moom mi nga xam ne moo bokk ci commission relation extérieure ak mbokk yi mu ko bokkal bu ko defee moom dina ñëw ci présentation bi euh, ginnaaw présentation yi mu wax ñu it tey jii bis bi naka ngeen ko waaje ak sababu bis bi lan la woon lan moo tax ngeen tànn bis bi euh, di ci woote sant Serigne Touba ak ndigal li fan la jóge waa ñoo ngi sant yàlla bu baax euh, bés bi maanaam ñu ngi ko tànn dañu toog rek ba xalaat war a sant Serigne Touba ci jamono yi ak fi mu toll. ak fi mu nu jëlee ak fi mu nu fi mu nu yóbbu ñu war a toog nag sant ko bu baax a baax a baax euh, ñu def waxtaan xol yi yëpp xalaat yi dëppoo ci loolu ñu commencé ko benn yoon yàlla dogal ni ñu ko bëggee suñu borom dimbali nu saa yu jotee rek suñ ci taxawee rek ñu am ci lu kawe suñu njort waaye ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax euh, wax dëgg yàlla depuis ba ko tàmbalee ak léegi it xëj na diine mënta ñàkk am ay jafe-jafe. waaye saa suñ tàntee rek dañu jàll ci jàmm ci sant yàlla bu baax di sant mbokk yi nga xamante ne itam ñooy bokki dëkk bi ak mbooleem ñi nga xamante ne itam ñoo ciy jàpp ci ñi wër réew mi yëpp rawatina daay ma Mafatihul Bichri bu Touba Sikaan seen pas-pas ak seen pasteef bi nga xamante ne moom la ñu yor bariwuñu waaye yàlla dogal ni ñu amee pas-pas moo tax bu ñu songee bés bi rek dañ koy defee ni ñu ko bëggee ci darajay sëriñ bi jërëjëf baax. waaw bés bi moom ñu ngi ci ànd ak mbooleem kilifa yi yëpp bari na ñi nga xamante ne nag ñoo bés bi ñoo ko bokk eh, ginnaaw buñ ko àndeek eh, waa dëkk bi daal eh, mboolem kilifa yi nga xamante ne ñoo wër fii maanaam ñoo ko bokk di ko def ndax saa suñu taxawalee rek su ñu amee ci ñoom yitte dañuy teew mm, bokk leenu bés bi jàppale nu ko gën ñoo xër sax ci bés bi maanaam depuis boo xoolee biñ ko tàmbalee ak léegi dalal nañ fii sëriñ Moustapha Mbacke bu sëñ Abdoul bu Touba Son dalal nañ fi itam euh, sëriñ waa mba waa sëriñ Abdou Salaam bu Touba Ndiakane dalal nañ fi itam sëriñ Mouhamadou Mbacke ibnu sëriñ Ibrahima Mbacke dalal nañ fi itam euh, euh, sëriñ Fallou Mbacke ibnu Cheikh Abdoul dalal nañ ko moom ba tey dalal nañ fi itam sëriñ Khadim As Sakko ca ca Mbour kooku yam dalal nañ ko ren jii nag yàlla dogal ñu xalaat daal di tànn kilifa gu mag di sëriñ Cheikh Ndiine Mbacke doomu sëriñ Modou Farmata Mbacke di doom ci sëriñ Afia Mbacke moom bokk ak Cheikh Khadim radiyallahu taala anhuma waaw xam xam ci moom itam nit muy nitu lislaam di nit ku baax borom pos-pos bu rëy rëy rëy bu mag boo xam ne mooy ñëw xayma pos-posam Eh, saayir sax xëj na waaye baatin bi sax mënuñ caa egg ñu seet ko ba mu dal sunu xel ñu ne bés bi daal ren dañ ko koy jagale mu ñëw ah, bu yegg see ci dëkk bi sakku nañ ci moom ay ñaan sakku nañ ci moom itam eh, diggante taalu bi ak ak sëriñ diggante taalu bi ak kilifa mu teg ko ci yoon wax ko li nga xamante ne moom lañ daa wax démb ak barki démb rawatina ci yoonu murit rawatina ni ko lislaam bëgge rawatina it teg nu ci fi nga xamante sëriñ Touba bu dellu si woon te itam foofu la ñuy teg mu teg nu foofu nu am ci moom yaakaar lool daal di waxtaan sunu xel tànn ko ñu daal di dem ba fi moom ñu ne ko bés bi daal yow lañ ko yàggleel yow lañ ci yaakaar loolu daal noonu lañ ko tey muy sëriñ Cheikh Ndine Mbacke ñu di koy xamante ne bañ ko fekkee këram wax na ko bokk bokk ak noonu ci bés bi ndax xamal nañu ne guddi day yéen bokki siikaan li ngeen am ci man yombut ndax dox guddi dem fenn budul nit moo gaañu bërëb ñuy di ak ñaan ma teew fa wala am ku gane si àddina muy ab liir ñu koy tudd ma teew fa sama tànk yàgg bariwut fenn waaye yéen waa Touba Tikaan seen bés bi jaral na ma lu nekk fu ngeen ci taxaw talu taxaw naa fu ko toll lool it sedd suñu xol bu baax a baax a baax ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool jërëjëf ku baax. Euh, kàddu yi am na solo macha allah nim ñu dikkee ci li nga xam ne mooy fàttali ñu euh, seen taxawaay ci dëkk bi waaye relation bi nga xam ne dox na seen diggante ak kilifa euh, yi nga xam ne ñoo bokk ci njabootu Serigne Touba macha allah dégg ngeen ni mu ci dikkee waaye dégg ngeen ki nga xam ne moom lañ dara jaale bis tey di Serigne Cheikh Nene Mbacke ibnu Serigne Modou Xarma Mbacke moom la ci moom la ñu tuddee bis bi dégg ngeen témoignage yu am solo yi nga xam ne def na ko ci moom dégg nga li tax ñu sabab jël ci bis bi dara jaale ko bu defee moom it Mbacke ñu ngi koy siyaare bu baax Euh, mbokk yi seetaan RTT TV ñu fàttali leen ñu ngi fii ci département bu Bambey waaye ci commune bi ñuy wax euh, Sikane euh, ci la ñu nekk tey ñu wax ni rek ñu ngi fi ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi bu defee ki ñu toogal suñu wetu ndajoor di moom it nekk bokk ci commission relation extérieure waaye di ab boo xam ne mu ngi fii ci dëkk bi ñu bàyyi ko mu présenté wu ginnaaw loolu it mu wax ñu dëkk bi nga xam ne mooy Sikane ndaw yi dëkk bi naka lañ taxawoo bis bi nga xam ni moom la ñuy woote fii audu billah bismillah in waliy allah wa ma tawfiq illa billah asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di ñaanal cheikh mouhamadul muntaqa ibnu cheikh mouhamadul bachir hafizahu llah wa raahu ayyadahu yal na ko fi yàlla yàggal lool ba mu yeggale ba naalaat ba yeggale ba ila ma shaa rabbuna aljalil noonu la ñuy ñaanale sëriñ Moodu sëñ Amdi Moodu Mbenda Fall xalif général de Baye Fall moom itam yal na ko fi yàlla yàggal lool te weral ko ba mu yeggale naa li mun naa la liggéeyal maamam maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ba àggale ba naalaat ba àggale ba li la macha rabbuna al jalil noonu la ñu siyaare mboolem nag itam xalif généraux yi yëpp ci biir Sénégal e, moo xam ci tariqatul mouridiya wala tijaniya wala xadriya wala ak laayoon wala ak fu mu mën a doon. ñu ngi siyaare kilifa diina yi rawatina nag kilifa diina yi nekk fii ci tund Bawol ci taali daara yi nga xam ne maanaam ni ko imaam waxee rek eh, daanaka fu ci bari eh, dara jaareel nañ bés bi ndax bés bi day seen bés ndax islam eh, bu fekkee ne dafa am bés koo koy dara jaale na nekk nitu islam kuy jëngu ci islam ndax dañu ne laa tuuti lihidaana sadiqaka walakin aati sadiqahu nee na aw fas bu ko jox sa xarit waaye jox ko xaritam loolu moo tax li ñu yëngu ci wàllu yoonu Cheikh ahmadu Bamba Khadim Rasoul dañuy seet ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu yoonu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wala ñu ngi yëngu ci islam eh, nga xam ne eh, bés bi bésu islaam la kon dañu koy delluwaat rek seeni borom ndax mbir mu nekk da nga koy eh, delloo fa nga xam ne maanaam jox ka nga xam ne moom moo ko yellool ndax islaam moom nittu islam maanaam mbirum diina islam nitu islam moo ko yelloo donte nag mm, dinañu uh, am relation itam ak yeneen uh, kilifa aada yi waaye ndax ñooñ ñoom ñaar dafay dañoo ànd ak duniya ak diini wa duniya la ñuy wax maanaam kilifa diine ak kilifa aada moo fi nekk uh, te itam kilifa aada yi di di ay taalibay kilifa yi diine yi moo tax ñoom ñaar yëpp dañuy ànd ak ñoom waaye nag bés bi moom bésu islam la boo xam ne maanaam ñi yëngu ci islam nga xam ne mm, ku soxla islam fa nga jëm ñooñu lañ mm, tànn daal di leen ko dara jaale waaye ànd koog euh, yëpp rek incha allahu taala. wa alhamdulilahi rabbil alamin loolu moom sawar naa ci lool ndax ndaw yi dëkk bi boo xoolee euh, kër yi bariwul waaye pos-pos bi nga xam ne moom la ñu or maanaam mooy al aqida al xalida mooy euh, pos-pos bu dëgër. boo xam ne maanaam euh, néewug lim gi feeñul ci maanaam ci seen ci seen programme ndax loola lépp li ko waral mooy déggoo déggoo ak yéenendoo jàmm te itam ku ci nekk def mbir mi ne man maanaam bu ma deful dara du jag loolu moo tax te itam yàlla dogal na lépp dañ ko teg ci ay maanaam ay xaanuuniya yu ma yoo xam ne yu wér la ndax lu ci nekk dafa am groupe boo xam ne ñoo ko saytu te ña ko saytu itam dañoo xool ba xam ne euh, la tax ñu dénk leen ko ñu nga ci ñoom ñu jox leen ko groupe bu nekk am na lu muy kii am na euh, li ñu li ñu wax léegi mooy relation extérieure ñu di ko wax al alaqa xaarijia ci arab ñooñu am na ñuñ ko dénk am na ñu ñu dénk maanaam li ñuy wax euh, nachirul axbaar mooy ab saxafi muy journaliste am na ñuñ ko dénk organisation am na ñu ko dénk am na ñu ñu dénk wàllu sécurité Euh, yooyu yëpp euh, dafa am ci biir euh, maanaam programme bi nga xam ne ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi bay sawar mm, ba macha allah nga xam ne bu mbir mi bu nit ñëwee ba dellu rek dañuy xam ne maanaam programme bi moom jàllati na macha allah. wax dëgg yàlla bañ koy def ak léegi itam dañ ciy gis yokkute waaye gisuñ ci wàññeeku. waaw ndax itam li arab di wax ne kullu sha'nin kabir kabirin kaana min qablu nee na loo gis mu rëy. bu njëkk tuuti woon waaye nag euh, noonu rek la ndax mbirum sëñ Touba la amul tànki ginnaaw tànki kanam la am euh, loolu moom wax dëgg gon ye bariwul lim bi bariwul waaye pos pos bi ak yéene bi euh, la ñuy def loo xam ne maanaam mbooloo taxaw nañ te mënuñu ko def loolu la Serigne Touba di wax ne rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin qiimatin ka uffin bari maanaam benn góor bu taxaw taxawaayu junniy góor waaye bari na junniy góor yu taxaw taxawaayu sero loolu moom macha allah gàcce ngaalaama ci xele yi mu góor yeeg jigéen ñi nag euh, mag ñi ak ndaw ñi ñëpp waaye rawatina na xele yi ndax ab am réew xele moo ko yor ak jigéen ñi wax dëgg yàlla macha allah ñoom euh, taxaw nañ ci taxawaay bu boo xam ne daal amuñu ci lu ñuy yox yoxi amuñu ci lu ñuy kii seen lépp dañ ko ko jox macha allah. Euh, fii rek lañ koy defee. Euh, di ko bokk ak mboolem tund wi nag ndax ñëpp a ciy jàpp ndax boo xoolee dëkk kër yàlla ngay seen benn dëkk bi la hmm, waaye euh, dem na ba mbir mi màgg na bay def ñaar waaye teewul nag euh, fu mu xewee rek maanaam doo xam maanaam ñi ko ñi ko programme ak ñi ko programme ndax ñun ñëpp suñu lépp benn la ndax village bi benn la sunu lépp benn la macha allah dañuy xàccandoo di dóorandoo xam na nag euh, li ñuy wax kër bu màggee mën naa dem ay kër waaye du leen loo xam ne lii la waaye euh, bu ñu sañoon dëkk bi dafay am maanaam at mu jot juróomi tant ba juróom benn ah, waaye nag ci ñaar la tolloogun mm. ñu ñaan yàlla yàlla na yokku waaw nii nga xam ne moom nga ngeen ñu fekkee nii euh, ñii nga xam ne ñoo fa feete ci wàllu amoo bale maanaam ñoo ñun ñoo seq mbir mi ca commencement bi ba ci fin bi bu xëyee fan it noonu la waaye mboolem tund wi eh, maanaam eh, ñoom itam dañuy fesal seen yéene di ñëw di ko bokk ak ñun at mu jot te itam sawar ci lool yéene ci lool eh, ba ñu xam ne wax dëgg yàlla bés bi num ñu ñore rek ñore na leen noonu moo tax bés bi du besu Touba Sikane rek waaye bésu mboolem commune Caxari la waaye rawatina mbooleem tund tund Bawol waaye rawatina yoonu Murit waaye rawatina umma islamique gépp ndax euh, ñun euh, ki ñuy sant mooy Serigne Touba te Serigne Touba képp ku ko xam xam ne diina islam donc moo ko ñor waaye leneen lu dul loolu ñoru ko waaw moo tax euh, dañ koy seq ak ñoom rek ndax mbirum taalibe la liñ naan lépp ñëpp lu ne ku ne nga ca te Serigne Touba moom defe naa rek kenn moomu ko kenn ki des loolu moom macha allah euh, dañ koy ànd ak ñoom rek. Euh, ci bis bu tedd bi nga xam ne ci la nekk tey di sant seriñ Touba euh, sant Serigne Touba nag moo war képp koo xam ne rek yaa ngi nooyu ci kaw suuf ndax seriñ bi liggéey bi yëpp liggéeyal islam rek moo ko taxoon a jog waaye xeet li xeet wi rek moo taxoon mu def daj li mu daj ci lislaam waaye daj ci ay coono yu métti foo dem ci réew mi gis ñu ko fay tàntal mu di fa am ay kër ndaw ñi bëgg ko waaye koo gis rek mu jël yaakaaram yëpp dëpp ko nag ngërëmal sunu borom rek la am moo tax lu mu am cër yu toy noonu euh, yal na yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem bu ko defee imam ci yow la ñuy des ba léegi incha allah euh, nga ñëwaatul ñu ci euh, li nga xam ne mooy dëkk bi ak bis bi bi ñu ko xëyee def naa ci programme bi gis nañ ni ci alxuraan njàngum alxuraan lañ ko xëyee bu ko defee rek nga dikkaatul ñu ci ci njàng mi naka la demee ak incha allah rabbi li des ci programme bi nan lay demee. waaw ñu dellu siwaat waat rek di sant yàlla bu baax a baax sawar lool ci leeral côté boobu ndax bés bi moom li koy lal mooy njàngam alxuraan saa suñu xëyee huit daal ba midi wala huit heures ba une heure njàngum alxuraan ci la ñuy nekk ak xasiida sunu kem kattan luñ ci mën dinañ ko jàng dina am ñoo xam ne sax dañuy jiital di jàng alxuraan balaa bés bi su ñëwee dañ koy boole ci liñ jàng ci bés bi mu di lim bi nga xamante moom lañuy ñuy jàng ci bés bi su ko defee it suñu paree mbokk yëpp dañu fay teew ñu def ñaan gi yéene yéene yéene waale ko ñëpp rek kenn ku nekk teew fa ñu xam ne ñun ñëpp eh, lu baax rek la ñu bëgg tey xam nañ ne yàlla moo yor li nu soxla ñu ñaan ko ko mu defal nu ko wax dëgg yàlla bu foofu passé itam euh, ginnaaw foofu euh, xanaa dañuy waajal julli tisbaar bi buñ julee tisbaar ba pare euh, def loolu njëfi paaleen yi maanaam xewlu buñ xewloo pare dal lu tuuti daal di waajal nag cérémonie bi su yëg tey cérémonie bi nag kilifa yi doog a teew ñu def waxtaan wi nga xamante moom lañ fay def xewluwaat buñ dellusiwaatee nag commencé njàng mi comme niñ koy waxee itam kuréel yi nga xamante ñëw na ci tund yi dañ fiy jàng waaw dëkk bi ci boppam di Touba Sikan daayira Mafatihul Bichri am nañu kuréel boo xam ne dina fi njëkk a barkeeloo su barkeeloo ba pare euh, euh, daayira Nourou Darayni bu Touba Kër Dame Cissé moom itam dina fi barkeelu su pare itam léegi lamp sëñ lamp bu Thiès dina ci barkeelu euh, sëñ Pape Malick Ndiaye bu Touba moom itam dina ci barkeelu bu ñu barkeeloo bu ñu bàyyi ko foofu rek li des ci guddi gi euh, sëriñ xaadim Guèye moo koy eggale ba asamaan set ñu waxtaan ak moom yiwante ak moom santante ak moom euh, ba beneen yoon incha allah. ndoowee daanaka fi mu ne nii ñu ngi waaj cérémonie bi ah, buñ ciy jógee rek incha allah bi ci jàngkat yu tedd yooyu ah, ñoo fas yéene taxaw bis bi waaye sëriñ Xaadim Gueye bu Touba mooy mujjee bis bi bu defee rek ñu xam ni ah, commission relation extérieure ñoom lañ doon dalal bu ko defee ñu bàyyi leen rek ñu àgg ci yitte yi bu defee ñu dalal yeneen commission waxtaan ak ñoom ñoom it lu jëm ci seen liggéey incha allah jërë ngeen jëf waaw kay mbokk yi ba tey rek ñu ngi ci jotaay bu am solo bi nga xam ni euh, moom la ñu ñëw wuy si fii ci Touba Sikan euh, bi ñu ñëwee it am nañu mbégte yendoo kenn koo xam ne ñoo bokk li ñuy def bokku métier mi euh, mu nekk fii ci benn rajo bu ñuy wax Bambay FM waaw kay ñu am ci mbégte lool yendoog moom waxtaan ak moom tubaarkàlla mu nekk nit ku yàlla baax muy Matar ñu ngi koy ab bége bu baax a baax te di ko siyaar ci bis bi nga xam ni ci lañ mus gisee waaye bokku métier bi am ci mbégte lool nag ci fekk ko fi bu dee Matar ñu ngi lay nuyu bàyyi nga nuyoog mbokk yi seetaan RTT TV. di rafetlu lu baax aussi liggéey bi yaakaar naa ne maa ngi lay koy wax sànq rek am na sama waa yi nga xam ne bi ñoo daan tase fii Seck Mamadou Seck maa ngi baax au passage daanaka chaque année ñoo fi daan tase maag moom macha allah moom it muy ko yàlla baaxal euh, ku fonk liggéeyam ku fonk aussi lu mu yor macha allah bu ñëwee fii liggéey mucc ayib la fi liggéey yéen it euh, ñu ngi ñu ngi soog gisee ren ji mais gis nañ tamit taxawaay bi gis nañ liggéey bi aussi macha allah yal na yàlla euh, barkeel donc tey ñu ñëw fii ci Touba Sikane comme ni nga ko waxee rek sëñ Xaadim ci loo xam ne du nagulet ndaxte daanaka ñu ak moom moom euh, partenariat bu yàgg la daanaka loom luñ xewle dañuy yëgal ñu ñëw teew couvrir ko comme il le faut ba wax dëgg yàlla ñoom ñu am si lu kawe seen njort donc loolu nag wax dëgg yàlla tawféex la santaat si yàlla suñu borom bu baax a baax mais avant loolu chaque année day am chaque année day am te bu amee aussi dañuy si boole ñu ñëw ànd ak ñoom euh, euh, bis bi ak ki nga xam ne bii moom la ñu booleek mu yor wàllub euh, information wàllub communication di sëñ Ibrahima Ndong moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziar ak ñi nga xam ne wax dëgg yàlla mooy ñooy magu dëkk bi yor aussi kàddu dëkk bi muy imam ak oustaz nga bii ñoom ñoo fiy jóge léegi nii sëñ Xaadim jëf sëñ Matar bu ko defee rek ci yow la ñuy des ba léegi ginnaaw ni mu ko waxee euh, moom daanaka moo ñu dalal ndax moo fi dëkk moo dëkk fi nga xam ne mooy département bi euh, département bi nag bari na ay communes yoo xam ne ñoo ci nekk ci loolu rek la ñuy bëgg nga dikk dikkalaatul ñu tuuti rek présenté ñu ñaata commune ñoo fi nekk ak fii nga xam ne mooy Bambey euh, naka la fi média bi mel xañ xam ne média moom léegi daanaka dëkk yëpp foo dem rek bu fa amul day am lu fa des te ngeen nekk ci wàllu woowu naka la fi dundee incha waaw jërëjëf euh, sëñ Xaadim loolu dama si sawar bu baax ndaxte département bi nekk na département boo xam bi yaatu na léegi waaw yaatu na bu baax a baax yaatu na ci dëkkuwaay yaatu na aussi ci euh, biir ak si biti yëpp ndaxte ñu ngi si douze communes département de Bambey ñu ngi si douze commune am euh, trois arrondissement ñetti arrondissement arrondissement de Baba Garage Ngoy si la ak arrondissement bi nga xam ne bii mooy Lambaye donc yooyu yëpp aussi muy ay arrondissement yoo xam bii ñoom ñoo nekk ci biir euh, département de de Bambey euh, macha allah donc muy euh, dëkk bu yaatu comme ni ma ko waxee léegi nii la boo xoolee aussi sëñ Xaadim dëkk bi aussi média bi mu fi avancé bu baax a baax ndax daanaka commune boo dem am na ay sit internet bu fa dem ci douze communes yi daanaka commune boo dem di nga gis ay site internet yu fa nekk donc di fa liggéey liggéey bi am solo biir Bambey rek aussi boo xoolee fa nekk si ay site internet na war na mat quatre wala cinq site internet yoo xam ne bii ñu ngi fa booleeg aussi rajo yi boo xoolee rajo bi ma nekk nii muy Bambey FM donc mooy la première rajo départementale mooy rajo bu njëkk sosu mais après euh, rajo Bambey FM am na yeneen rajo encore yu sosu euh, am na fu ñuy wax caapi caapi caapi mooy Bambey nag ku xam Bambey dëgg dëgg dëgg daanaka doo wax sax Bambey caapi ngay wax waaw caapi mooy turu cosaan bi mooy turu mag ñi mooy turu bu yàgg muy caapi am na aussi rajo bu ñuy wax euh, gox bi FM gox bi am na fa caapi am na fa donc lépp aussi mu ngi dans la commune de Bambey ginnaaw ba Bambey FM soso daanaka mooy rajo bu njëkk a juddu dans le département de de Bambey donc PDG bi di la Linguère la présidente donc ay Aïssatou Mbodj donc Aïda Mbodj moom mooy PDG rajo bi donc moom moom rajo boobu di euh, Bambey FM waa sëñ macha allah am na solo ay dem boñ ñu jaajëfal ko bu baax euh, moom it euh, ci taxawaayam ci réew mi yëpp donte mii miinu ñu jëmm ji waaye tur yi moom euh, dégg nañ ko lu bari ci suñuy nopp yàlla na yàlla guddal fanam ndax loolu am solo la média moom mënta ñàkk ci benn dëkk rawatina dëkk bu toll ni Bambey bu defee rek Maxtaar ñu ngi lay gërëm bu baax di la bàyyi rek incha allah xam naa ne ci kanam tuuti danañ dajawaat ci li nga xam ne mooy liggéey bi ndax niñ fi bokkee yendoo noonu lañ fi bokkee fanaanoo te ñaan yàlla fekke ko at yu bëree bëri jërëjëf bëgg nañ la bu baax jërëjëf macha allah